sécurité des marché Khoudoss wax ci dalal wax ci feggoo ak euh, mbay Ndiaye bu dem donc Khoudoss nañ leen di bàyyi ngeen feggoo mais ñu ngi ziar au passage euh, Théodore Semedo euh, tey dafa am gànt moo tax ñëwul. waaw comme ni nga ko waxee Salma Ibrahima Fall président Ascodec Mbaye Ndiaye mooy association des commerçants et délégués de marché. Mm. bu bu Sénégal président. Mm. yàgg nañu dégg coow lii bi ñu. raser bâtiment central marché bu bu bu Sandaga mm-hmm. euh, coow li ne kuur ñu ne waaw peut-être que dinañu ko defaraat joxe délai yeeg yooyu euh, ba ñu xayma sax li nga xam ne moom lañ ci war a dugal comme koppar mm-hmm. euh, waaye ci diggante bi am xëccoo diggante ville de Dakar ak mairie bu plateau bu Ndakaaru mm-hmm. ba léegi daanaka bu weesoo clôture bi ñu fa def amul dara la ñu fa teg lu xew merci Abdou Khoudoss euh, comme ni nga ko waxee euh, xam nga marché yi dañu am ay problème yu garaaw ndax euh, mun laa def modernisation de marché te waxulaa ak acteurs yi nga xam ñoom la concerné. ñoo bokk ci secteur bi. ñoo bokk ci secteur bi parce que boo xoolee marché Sandaga ba mu lakkee ba léegi. ñu tëj ko. mun nañu ko defaraat ngir ville di ko xëccoo ak plateau maire plateau ku nekk naan maa ko yore loolu moo yàggal liggéey bi te ku ne xam na ne marché maire yi moo ko moom moo ko yilif bokk mais nag boo ko yilifee ba pare yow ñi nga xam ñooy commerçant yi nga xam ñoom lay ñoom la marché ñoo moom marché bi ñi nga xam ñoom fi liggéey def activité yi dangaa war a wax ak ñoom waaye moo liggéey marché te waxul ak ñi nga xam ñoom la concerné te loolu moo am Sandaga moo am ci yenn marché yu bari parce que président Macky Sall dafa bañ ba mu wut lu mel ni euh, euh, benn procès dénk ko mu sa saroo di marché nga xamante ni ku ñuy wax yaay Fatou Diagne moo ko yore muy promotion léegi nag kooku moo war a moderniser tout le marché du Sénégal mm-hmm. mais fekk na ville de Dakar ak Dakar Plateau di xëccoo marché Sandaga génn ña fa nekkoon toñ marché ba clôturé ko ba fi ma waxee wu nii birig taxawu fa te leen mat ñaar at ñetti at loolu nag ba kañ loolu bëgg nag mu mu arrêté. léegi yaay Fatou Diagne mi yore projet bi moom moom lu mu ci est-ce que jot ngeen dajeek moom di di ko di ko laaj lan moo waral ba léegi moom ci ay blocage noo xam nga marché boo ci Sénégal maire ba nga xam ne moo ne ci commune ba. Mhm. moo ko yilif waaw boobu nag moo am plateau parce que. ville de Dakar nee na euh, bâtiment bi patrimoine voilà ville de Dakar la. voilà yaay fàttu moom président la ko dénk modernisation de marché mais li man mooy. képp ku bëgg defar sa marché. mu lëkkoo ak yow. appuyer la appuyer la ba nga defar sa marché. loolu la man mais mënu forcer kenn ku tey mu defar sa marché far la force loolu moo am problème moo am su fekkoon ne tey bàyyi nañu comme ça ñu tànn ku leen yàqoon kon léegi marché partenaire bu yàgg. ma jox la benn exemple. man maay président Massagol bi bu nekk Soumbédioune. léegi moo fi mu ne ñu ngi ci desam néew bi di ko tabax di ko tabax. premier néew bi jàll na ñu ngi ci desam néew bi fi nekk nii. ak ni ñu ko liggéeyee loolu dafa nekk aw yoon waxee bu fi marché yëpp jàll tey du ñu am benn jafe-jafe parce que marché pour nga moderniser ko dafa am yoon. bu njëkk bi mooy da ngaa war a dem ña fa nekk nga sàkk ñetti commission benn ci maire bi trois personnes commerçant trois personnes. promoteur bi koy tabax trois personnes muy neuf personnes ñu àndandoo bind marché bi ku moom bi ñu ni diw ba eggal ku taal bi ñuy diw ba eggal ñu xam ni tas de place moo fi nekk ñu teg à côté kenn mënu caa changé kenn kenn mënu faa dugal kenn. mais est-ce que jéem ngeen xool lan moo waral blocage bi di am parce que dégg nañu. am ngeen dajeek la président de la république waaye itam déggoon nañu min euh, ki nga xam ne moom moo jiite mairie bu plateau di Aliou doy di joxe ay garantie ci wàllum euh, defaraat euh, bërëb bi. waa xam nga Aliou Ndoye comme moom war a defar marché ba ci commune am la nekk dafa am promoteur bu mu ko joxoon mm-hmm. xam naa ba mu ne ba ca biir ñu am ay problème mm-hmm. ñuy dem tribunal loolu moo ko yokk yàggal xam nga affaire yoon gaawul. loo moo tax affaire bi yeex. lu moo yàggal la affaire Sandaga bi. loolu moo ko bloqué ba tax fi kenn mënu ko def kenn mënu ko dindi. mais est-ce que amul woon benn xëccoo bu am ci entre maire ville bi ak maire Dakar Plateau parce que ku ci nekk yaa ngi doon wax que lii ci sa prérogative la bokk. waaw loolu la wax dama ne loolu moo yàggal liggéey bi. Mm. ndax bu njëkk woon jamonoy Khalifa Sall. ñoom ñoo yoroon marché ba bopp mu ngi woon ci ville dakaar Dakar. Ah, parce que loolu aussi on était bon acte ñu nekkoon. voilà mais acte trois la décentralisation bi acte trois bi ñëw def ko décentralisé nag kenn ku nekk nag. Hmm. yaa moom sa commune ak la fay dox yëpp yaa koy gérer boobu nag ci la ñëw ci loxal euh, monsieur Ndoye. Hmm. léegi nag moom mu seere ko war ko defar entreprise bu mu ko joxoon nag moo toj marché bi ba war koo tabax am ay jafe-jafe ñuy yem tribunal ñu yéeg ak wàcc loolu moom bële liggéey bi. est-ce que jàppoon yi dañoo bëgg fa tabax leneen li nga xam ne bokkul ak li ngeen doon xaar maanaam maintenir euh, architecture bi fa nekkoon ak kit delloo ko commerçant yi. waa xam nga loolu nag mënu caa xam daa parce que commerce maire bi ci boppam. moo waroon a woo commerçant yi nga xam ne moom la concerné wax ceeg ñoom laaj leen seen xalaat te defu ko buñ ko demandé audience du leen jël mm-hmm. problème boobu la am ak ñoom te lu mënu nekk nag ndax gis nga Abdou. Mm-hmm. am na ay jamono à l'époque jamono moom lu jóob booba jamono dañ daan mer daan tax matam yegg eh, ni la kaay ma luyee la ko boo bañee boo bañee boo bañee kii boo bañee fay mu nangu jox sa moroom léegi loolu amatul léegi dañuy jaay ku amul njëg doo jënd kon nag boo jaay nit ki nag war ngaa wax ak moom ba dàkku moom ci du ko def li ngay def kon moom mooy dëgg gi waaye du xëy xëy dekk ni demee toj marché bi dama koy tabaxaat dama leen ko jaay prix sàngam loolu mënu nekk Sénégal romb na foofu fi mu nekk romb na foofu fi mu nekk nii toog waxtaan moo jiitu waaw boo nekkee maire bul wax ne man maay meer bi rek lu ma neex def non mm. dangaa war a woo délégué marché bi marché bi fal mm. nga ñëw nga ne ko damaa bëgg a defar marché bi mm. mun la yan condition nga ne ko yii mun mun ko nañ ko defee nii ak di bi ngeen waxtaan ba d'accord yàq marché bi jiital boo ko yóbboo ci conseil municipal bi bu ñu la ko wotelee boo amee majorité da nga am droit def doo am benn coow waaye su fekkee da ngaa ñëw man maay maire bi rek sama conseil wotel na ma am naa majorité damay tabax sama marché am na Ouro Sogui ba ki démb rek dégg nga coow loolu ah. Mm. maire bi ñëw tabax andi ay bâche teg ni damay génn marché dama ko toj non gars yi bañ loolu baaxul. yàggul sax waaw Ouro Sogui nañuy waxtaan nañuy waxtaan. Mm-hmm. waxtaan moo jiitu lépp. Mm-hmm. nit ki loolu moom xam nga dama wax ne maire yi dañoo yilif marché yi waaye moomuñu ko. waaw mm-hmm. oh, parce que yéen tamit seen taxawaay bi xaw naa des bu baax a baax ci wàllum signalisation mooy état. Euh, bâtiment yi am ci marché bi parce que yàggul noonu bi amee euh, côté Gueule Tapée bu Case ba mooy euh, effondrement dal bi fa amoon. Mm-hmm. waaye it boo duggee ci marché yu bari daanaka bërëb bi. boo xoolee mur bi sax dangay dangay tiit amoon na gël tapé bii ngay wax nii mooy waaw moo tax ñu tabax ko laata ñu koy defaraat moo tabax est-ce que taxawaay bi desut ah kay maanaam matt sëkk li ci nekk mooy xam nga boo bi nekk boo bi nekk euh, marché kaas ba mhm. li ko def mooy bâtiment dafa am lu mu war a yanu ak lu mu attanu ak lu mu attanu tey fii boo ko tegoon ba mu ëpp loo xa waru ko attan dafay daanu mhm. stockage ci suuf mais du kaw étage. Mm-hmm. stockage. Mm-hmm. ay poids ay tonnes. Mm-hmm. ci suuf la attan moo ko attan mais ci kaw étage attanu ko. léegi lu tax yéen doo leen ci dugg doo leen dugg ci marché yi di di di di di inspecté wala seetlu yooyu di di ci bàyyi xel. loolu rolu maire la. yéen délégué doo leen ko. vérifié non amuñu droit def loolu. maire mu am droit def loolu. non vérifié si signalé. ñun li man mooy. li ñu mën mooy. lépp marché boo xam ne am na jafe-jafe ñu war ko tabaxaat. wala mu am jafe-jafe ñu wax ak maire ba. ba mu bañ ñu se bu fekkee nangu ñu set su préfet wala préfet parce que ñoo la ñoo la ñuy def noonu lay doxee waaye maire ci boppam lépp lu xew marché responsabilité maire la parce que maire mooy encaisse recette yóbbu ca këram. yóbbu ci commune mhm. kon maire moo war a régler débordement de marché. maire ma war a nettoyer marché meer moo war a fay courant lépp maire moo ko war a def. léegi yéen seen rôle bi finalement lan la kon. seen taxawaay bi. suñu taxawaay suñu taxawaay mooy boo xoolee tey euh, marché yi jafe-jafe yi moom mosaan am kenn du leen ko jàppale yow rek yaay toog sa sa jafe-jafe ba mu réglé wala mu ñàkk réglé léegi dañoo lëkkaloo nekk benn Sénégal gépp koo xam ni kii tegu lu xay teguwul ñu jooy ko fa ñu ko war a jooyee ba mu ba mu réglé wu ak nu mu réglé woon nag. bañ ci dara parce que boo xoolee fi mu nekk ma wax la bëkk dem rek gis nga mbuur bëkk dem yaa gis bëkk dem bu dafa waa ji demee dem yóbbu fa arme dégg nga ba rey fa ñaari nit ak ñu fa blessé loolu sax xamal jaaduwul lu ko waral ñàkk sécurité parce que kooku responsabilité maire bala maire bi ci moo la jël responsabilité am parce que marché dafa war a am police police boo xamante ne bi ku ñëw ci marché bi ni ah comme poste poste am na fi que du ma fa def lii du ma fa wax laa. Mm-hmm. waaye marché boo dugg ci Sénégal tey marché yu bari bokk amul post police benn autorité nekk boo boo xam ne boo amee problème man ko réglé. ba ci dolleeku xoolal tey Abdou foo dugg ci Sénégal bureau boo waay dugg dañ la identifié ne kan nga doog dugg mais marché rek nga dugg yor arme bu la neex te kenn du la contrôler nga def loo ndax gën dem loolu nag dafa war a jeex. dafa war a jeex. Oh, moo tax yéen yéen marché yi tamit euh, Salma ni ñu koy faral di gisee contrôler leen du yomb. parce que mm-hmm. même bu ñu leen tabaxalee defal leen clôture mur. dina am ñoo xam ne débordé wu dem euh, defar seen bopp tabax tabax. Euh, mm-hmm. tabax di déborder complètement aussi ak lal ci trottoir yi war na nekk benn mm-hmm. responsabilité bi nga xam ne <laughs> au moins. loolu daal wax ne responsabilité maire bi la. parce que maire dafa jël ay surwaaye marché teg ku ci biir marché ba ñooñu ñooy nekk bëti maire. ñoom ñoo war ñoom boo ñëwee laal fa xëy jaaduwul ñu la ee eh, bu bu laal fii du laalukaay ñu bàyyi trottoir bi ak peetooy ñu dox. kon délégué marché yi mënuñu leen euh, sant lool. non xam nga Sénégal ni ñu ko waxee euh, euh, ni ko tubaab di waxee maanaam civil mënta régler moromam loolu moo ci nekk am na loo xam suñu rol ñun loolu suñu rol waaw ñu li ñu man mooy ci biir marché bi dafa maire mënta def. ñu jàppale ko ba mu am fa loolu am na yoo xam ne responsabilité maire la du suñu responsabilité noonu. waaw mais yenn yi tamit yenn taxawaay vérification di signali euh, signale maire yi. ñu ngi koy def ñu ngi koy def parce que boo gisee ñu ngi koy def. tey moo jox la benn exemplaire boo xoolee tey Sénélec Sénélec mm. te bu njëkkoon da nga gis marché ñuy def di ay branchement branchement marché di lakk. Mm-hmm. ki jox ki ki jox ku ñu jox sa mën a fil fil ga dem ba atul courant bi loolu léegi am na ci marché yi de. ah Mbaye loolu ba léegi am na ci marché. mi ngi waaye mi nga wàññeeku de mi nga wàññeeku de lu ko tax ma wàññeeku mooy dañoo lëkkaloo ak Senelec dañoo lëkkaloo ak Senelec ñu nekk suñuy partenaire ñu def benn comité de dialogue benn ko ba tax fii dañoo ubbi benn groupe whatsapp pour gën a yombal mbir mi pour lépp lu waay gis yoo xam ne du jaatuwul boo ko mënta nga rek nga woote ñu ñox orienté fa xale fi ngay jaar maa ngi nuyu bu baax directeur général bu Senelec papa Demba Bitèye ak madame Tabara Ndoye mi nga xam ne mooy service commercial bi ñu ngi jàppale bu baax wax yàlla Masako la baax nag def nañ fa un milliard pour installation bi ña ngi ko tàmbali Liberté 6 ñi nga asalem ba dañoo bàyyi marché Dakar yëpp ba Sénégal dañu daj ba Sénégal bi afro sécurité dañoo am benn benn benn kii benn benn kii benn kii bi ñuy wax COSYEL mhm. entreprise bu tudd COSYEL COSYEL mhm. mu ngi ci biir Senelec COSYEL mais loolu yëpp taxul que ne ba léegi am na ay incendie yu ñuy nemmeeku ci marché bi euh, rawatina effondrement de dalle yi ci nga xamante ne waroon a nekk benn taxawaay ASCODEM parce que yéen ay délégué marché ngeen normalement bu amee des irrégularités yéen yéen a ko war a signaler. Mm-hmm. Euh, waaye bu bu bu bu desee que ni euh, sensibiliser commerçant yi fa nekk aussi loolu xanaa war ngeen ko cee mën a taxaw. délégué marché bu nekk lépp luy xaw a sa marché da ko koy yëg da nga koy xam. léegi loolu tax dara bu xewee ñu laaj leen ngeen naan non ñun yëguñu ko woon. non dafa am ñoo xam doo ko yëg mais loo yëg da koy réglé loo yëg da koy réglé parce que nag na la wóor ni bépp problème am ci marché fi ngay jaar mooy demal te maire ba su ko nangu réglé nga dem ci sous préfet ba ba nga egg ci gouverneur ba nga egg ci ministre de l'intérieur noonu lañu ko réglé foofu mooy base bi nga xay fi nga war a jaar. yoon la ñenn commerçant yi nee ñu yéen lekk seen xaalis rek moo leen tax a toog ci marché yi de. ñan ci. yenn commerçant yi. Ah. loolu lañ leen di reproché. lekk ko lekk xaalis. seen xaalis. lekk seen xaalis. waaw mais man li ma jaax délégué marché kenn du ko fay weer. amul salaire mu caati amul amul amul salaire. ban ma caat. xanaa nga jaay nga nga tëj sa place. Abdou kaay jàppale ma damaa am sa police wala gendarmerie jàppale ma nangam nangam nangam kaay sama tudd doom ji kaay sama takk ga nangam nangam amul leneen. amut leneen amul leneen. waaw amul ay mbakkuus yu xaw a nekkaale. mbakkuus xamuñu xamuñu ko sax amul. mais en tant que délégué sànq ngi lay dégg ngay wax nga ne euh, bi ñëwul waxtaan ak yéen mais est-ce que yéen ñi nga xam te ne fa nekk def ngeen ay jéego pour dem waxtaan ak moom parce que yenn jafe-jafe yi leen toogee di ko seetaan mën na dem ba loxo. waaw xam nga mun ne passé bind ko def politique. Ah, def. da ngeen a bokkul parti yi ngeen. non pas man xam nga man damaa nekk changement yëpp. man nekkuma Sandaga man Gueule Tapée laa nekk waaye la fa nekk maa ngi koy xam ndax ni ma koy wax waaw d'accord euh, dafa am loo xam ne itam euh, bokk na ci euh, mbébétu président de la république mooy modernisation des marché ci ci li nga xamante ne dégage nañ lu toll ci trente milliards. Mhm. ñu ne dañuy defaraat marché Ndumbe Diop je pense bu Diourbel. Mhm. bokk na ci aussi marché bu leen bu bu Ndakaaru gi Ziguinchor Ziguinchor du moins pardon. ak Pikine marché syndicat je pense bien ak Kaolack. waaw fan la mbir yi toll. waaw ñu ngi ci euh, marché Ndumba Diop bu nga xam ne moo nekk euh, Njurbel moom yaakaar naa problème assainissement moo leen dese waa marché pare na loolu moo moom moo des ci marché ba moo tax ñu indi gire ko euh, marché syndicat yaay Fatou mi ngi négocier ak waa marché ba pour xool fan leen war a yóbbu pour mën faa mën leen def racassement pour ba liggéey bi di pare. yow daa mel ni da jàppale yaay Fatou. non du pour jàppale yaay Fatou. Hmm. yaa faatu de soxla naa ko ndax sunu marché bi maanaam li am mooy hmm. sëñ Fallou Mbacke neewoon na koo nekk ci moom mu nekk ci yow hmm. ah, daa nekk ci yow moo tax nga daa nekk ci nun marché yi hmm. ak jafe-jafe yi ñuy gis ci marché yëpp am ngi ñu ci jàppale bu baax mu ngi ci jàppale bu baax a baax ndax fi nekk nii kere ba mu wootee benn réunion la fa ñëw ci ay maire ëpp na vingt cinq maire yoo xam ne ku ci nekk engagé wu nga mu defaral sa marché d'accord bu seen syndicat bi waaw lu tax ba léegi amul lu luñ ci def. xam nga bu syndicat bi xam nga marché euh, Sëñ Abdou euh, marché buy buy fonctionner pour nga yëkkati ko yóbbu ko feneen yombul gaawul. mooy problème bi lu tax lu tax yombul. tax yombul gaawul. ci jëkk parce que commerçant yi ñoo ko gën a bëgg. bi ci bi ci bi ci jëkk. mooy fañ leen di yóbbu est-ce que gënal na commerçant yi benn est-ce que yan bala nga leen di yëkkati war ngaa war nga xam yan condition lañuy la ñuy nekkaat pour ñëw bu ëllëgee jotaat seen place. yow da ngay poser question mais yow yaa ñu war a wax ne est-ce que commer ne ñu commerçant yi ñoom la ñu bëgg euh, ñee defuñu ko wala ñoom la ñu bëgg commerçant yi nangu ñu ko mais soo soo soo soo nee commerçant yi est-ce que fi ñu leen di yóbbu. Euh, waaw mooy li ma la wax ne xam nga xam nga bu fekkee ne da ngaa bëgg a yëkkati am marché. waaw da wax ne site bii laa leen di yóbbu. léegi waxuñu dara ci fu ñu war a yóbbee ah, leen wax ci la ñuy nekk di ko négocier. buñ ci juboo foofu lañ neen di yóbbu recensement bi dèjà moom pare na ba pare. d'accord fab la yóbbu foofu rek moo des léegi. installé mm. leen foofu en attendant provisoire. ok waaw lay demee terminé. Mm-hmm. ñu jeexalee ko foofu est-ce que yaakaar nga ni euh, xaalis biñ te dégagé ak lu ñu doon wax yëpp ba léegi ñu ngi ci ay annonce ak i promesse waa xam nga sëñ Abdou euh, problème mu modernisation de marché mm-hmm. dafa am yoon wax naa la ko léegi maanaam bu njëkk woon dañuy Eh, tabax cantine luyee la ko ngay fay ba mënta fay ñu nangu jox sa morom léegi dañ koy jaay. Mm-hmm. comme dañ koy jaay nag ki nga koy jaay war ngaa toog wax ak moom bu ngeen déggoo ci ay kàddu. Mm-hmm. te Abdou Khoudoss nga ne ci fii di fi liggéey pendant dix ans quinze ans nga jël woon sa place ay million ñu bëgg la ko jaat ay millions bu pare day metti kon dañuy war a xool mooy ki fi nekkoon démb ak ki fi nekkoon tey war ñu bokk prix bu ñu amaatee place bu place wala tax bi ñu jaay place bi 6 millions ka fa nekkoon démb bëgg dem li muy joxe 300000. d' accord yooyu yooyu mooy. important commerçant yu bëri commencé nañu weddi ASCODEM ah, parce que nee nañu ay promogem ngeen di liggéeyal ak état bu Sénégal seen jafe-jafe seen yoon nekku ci. Ah. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga état bi dañ ko santi ko gërëm lu tax ñu ko sant ko gërëm. Mm. def na jàppale ci ay financement ndax bu yëggu rek dañuy saaraax yaa ngi am joxoon un milliard. professeur de Dakar. te war nañu dolli encore 3 milliards pour bi Sénégal. te crédit boo xam ne Abdou Khoudoss amul apport personnel amul garantie amul garantie amul ubbi compte. frais de dossier yëpp.